Euh, wàllu sarax fa laay taxaw parce que da ko fonk et puis da ciy incité à chaque fois euh, sëriñ bi lan mooy euh, njariñu seetlu ba xam lan mooy sa sarax parce que bala ngaa saraxe da ngay mën a seetlu ba xam lan mooy sarax bi nga war a génne. nit ki lan mooy tax nga ne ko lii mooy sa sarax nit ki da koy seetal seetal gi mooy nit ki faw nga xam turu ndayam xam jëmmi aw turam ci jëmmam soo paree nag léegi nit ki di nga xam ba xam ci ban tabia la bokk di nga xam li nga xamee sax mooy biddiwam. jëmmi raw xaanam tamit da koy xam léegi loolu soo ko seetalee dafay mel ne ab seetu boo tiim jëmmi doomu aadama bi léppam da koy gis ay gàllankooram nii nga koy séene ay xéewalam nii nga koy séene xéewal ya nag nan ngay fexe ba man ca jot nga ne ko da def lii def ak lii su matee nga jot ci xéewal ya ay gàllankoor di waaja dal ci kawam ba nga xam ne la ko ca dal bariwul mu ñëw ci yow nga gis ko ne ko yow de sëñ bi ko am chance nga mu na la ci naka nga ne ko xanaa gisoo di waaj a yegg si sa kaw mu ne la lu ciy pexe nga ne ko defal defal lii defal lii mu def tegtal tàqaloog ak moom bamba li ma gën a fonk mooy sarax ndax man damaa xam njëriñu sarax ci jëmmam sarax effet bi muy def ci doomu aadama yi laa xam nit ñu bari du ma leen ñaanal sarax képp laa leen di jënd seen aaji faju ah bon billaahi wallahi taalaahi téeméeri personne su ñëwee ci man ña ma cee ñaanal du mat fukki nit dégg naa borom xam-xam yi ñu mel ni yéen sarax ngeen gën a fonk ko ñaan ah bamba bamba ku xam ku xam dara ci xam xam dara ci sarax ak sarax mooy lan ak sarax ban effet lay def ci doomu aadama ah di nga xam ne sarax moo féete lépp kaw. ñu bari yàqule nañ sarax moo leen yàqule waaye sarax nag bàyyil xel bàmba li may wax képp kuñ ne koo xamee ne dañ laa tere ne la bul rende hmm. nga dëgër bopp rende maanaam su fekkee ne sarax maanaam lim lay mën a jariñee nga def sarax boo xamee sa ne du wuroo koo jënne noonu la lay mën a loree nag moo tax nit ñi nañ xam bu baax a baax a baax ci lan lañ war a saraxe alors Serigne Bara Mbacké est-ce que am na sarax buy facilité maanaam sarax buy yombal am amul doomu aadama ah, loolu kay loolu koy weesu na am am na ci doomu aadama yoo xamee se ne suñu xasee ba xam seenub sarax ñu respecté ko jërul ñuy ñaanlu jërul ñuy takk jërul ñuy dem fenn te saa su nekk xéewal dana ñëw ci ñoom ban tiit bamba jëmmi sarax su ma la mënee waxee ci doomu aadama mooy benn tur boo xam ne su xasee ba sekkati ko ci doomu aadamam xéewal force da koy am neex naqare da koy am lu dëkk bi dëgër dëgër lu réew mi lëj-lëj moom day am xaalis. d'accord te am na ci yoo ne sangat mënu la koo jox takk mënu la koo jox sarax képp moo la ko mën a jox. am na ci ñoo xam ne nag cangat moo gën a gaaw ci seen biir am na ci takk moo gën a gaaw ci am ci ñoo xam ne xalwatu moo gën a gaaw ci seen biir. alors léegi nit ñooñu faaw kenn ko ne nga xam lan moo gën a gaaw ci mbirum soo xool ne ko defal li defal waaye du caagin ñëpp am na ci ñoo xam ne sangu mun leen a jariñ am ci ñoo xamee sa ne sarax sarax li am am doole am na ci sarax yoo mun leen a jariñ alors euh, euh, mi ngi noonu euh, je pense bien que mbokk yi miin ngeen ki ma dalal parce que dootuñ ko ñuy présenté ci Feeling Dakar rawatina ci àdduna bi mooy surtout Serigne Touba bi nga xamante ni mooy Serigne Bara Mbacké borom solution di faj ajo yi ci anam yu wuute waaye Serigne Bara itam ñu bëri dañu la choisir taamu la ndax kaaraange nee nañu yaa ci mën ndax nag sa taalibe yi nga xamante ne bi ñu ngi un peu partout à le monde da nga leen di aar ci ay ndomba da leen di aar ci ay jaaro yoo xamante ne bi dootuñu soxla sax tey aaru ci leen ndaxte lu ci mel ni kaso yor ngay ndomb yoo xamante ne bi police du am ci yow soxla kaso doo fa dugg doo fekkee coow euh, alxaaji Bamba da nga wax loolu muy mbirum kaaraange nga wax ci waaye jëmmi kaaraange ci jëmmam bépp nit koo xamee sa ne am nga léppi àdduna te amoo kaaraange da ngay yàqule kaaraange muy lépp doomu aadama ba tey nit ki lépp loo mën a am te amoo kaaraange pour nga ñàkk loolu weesoogul ni am réew mënut a ñàkkee kaaraange noonu la doomu aadama mënut a ñàkkee kaaraange doomu aadama pourquoi moo am kaaraange doomu aadama yi jëmmi doomu aadama yi na ci boppam dañ koy dëgmal mm-hmm. di ko yàqal. di ko liggéey jëmmi junne yi ci jëmmam ak sayaat yi ni dañ koy dëgmal doomu aadama faw nga protéger faw mu protéger boppam ndax doomu aadama li ko soxla dafa bari junne yi dañ koo soxla saytaane yi dañ koo soxla jëmmi banoo aadama yi ne moom dañ koo soxla léegi ñun ñëpp nag kenn ku ne yor na benn xeetu tooke joo xamee sa ne su ko defee ci nit ki nit ki day mard idal day yàqu ba faw ndax da ngay gis ñoo xamee sa ne dañ leen di sànni kort nga gis ñenn ñoo xam dañ leen di liggéey nga gis ñenn ñoo xamee sa ne dañ leen di def loo xamee sa ne soo xasee ba def ko fa nga ko def seen diirub dund dootuñu wérati léegi loolu lépp nag pour nit ki mën cee mucc faaw nga am dëgg-dëgg kaaraange kaaraange googu ngay am mooy tax lépp lu la nit def day del day delluwaat ci moom léegi nag jëmmi kaaraange yi gis ngeen ndombe yi ma yor. Hmm. dama ciy liggéey liggéey yoo xamee sa ne liggéey yu mucc ayib la. Hmm. mu ngi toll ci trois gaw trois yëpp nag ngay takkandoo. su fekkee ne da ngaa nekk sa kër gawal ñaari su fekkee dangaa ngaa dem bay jën nga gaw bi ci des billaahi wallahi taala képp ku ko yor doo dee ci accident hmm? képp ku ko yor nit laa wax lépp lu la nit def day delluwaat ci moom ci kaaraange képp lay dox te lii su ko nit ñi xamee dama ko jële ci mag moo xamee ne sama maam la jamono jam daan ko liggéeyal ku masa buuree suñ masaana ñëw ci moom soxla ko da ngay yëkkati xaalis bu bari yëkkati fasu naaru góor jox ko pour soog ca mën a am te jamono da joxe fasu naaru góor lu jafe la woon. d'accord. Euh, man kaaraange ne ko nit ñi fonk. j'ai envie de poser une question par rapport ak ndomba bi sëriñ bi teel ndomba bi euh, parce que ndomba bi kaaraange la macha allah mais pour góor ñi parce que jigéen ñi ñoom mënuñu takk ndomba lan nga prévoir pour jigéen ñi nga am ne bëgg nañu aaru muccu ci accident yi muccu ci lu bari. su fekkee ni jigéen ñi jaaro bi nga leen di jox. d'accord. xam nga xam nañu jigéen mënu takk yii. Mhm. loolu moom xam nañ ko. léegi nag ginnaaw góor gi moom mën na takk jigéen gi am na ngantal mën koo takk mbooleem liñ liggéey ci secret bii moom lañ dëxan ci fii. donc bu la neexee jël jaaro bi. wala tabarki Sëriñ Tuubaa képp ku ko takk alal daan la yomb. Hmm? képp ku ko takk alal dana la yomb. jaaro bi. li fekk jëmmi jaaro bi mu ca sa loxo loo tàqale ko mukk ak alal. macha allah. bamba ibbeeku day lu am. Mhm. suñ bamba. alors mi ngoogu euh, mbokk yi ba fàttali ba tey ne ki ma dalal mooy euh, sëriñ euh, Baara Mbacke borom solution mais sëriñ Baara nag ba tey itam ci noonu laay tàbbeeg yow ñu waxtaan un tey ci wàllu gisin. parce que euh, li nga ma wax léegi ça a en tout cas beaucoup de réactions euh, muy Ousmane Sonko nga gis ci palais bi mais pas Bassirou Diomaye fay tey mën nañu wax différence bi entre Bassirou ak Ousmane Sonko wala li ne ci Ousmane li yàlla def ci Ousmane Sonko daf ko deful ci Diomaye. waaw su fekkee ne euh, foofu da nga laaj sa xalaat ngay laaj xalaat ngay laaj walla sa sa yow li nga gis ci sa baatin. waaw su fekkee ne par exemple. Hmm. gisin wi nga xamee ne. mooy gisuñu Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay mhm. bokkuñu sax ci taxawaay d'accord Sonko suy peese cent Bassirou mënta peese vingt yu mat benn fi ma ko teg mooy ci mbirum biddiw mhm. ndax xam nga nit ki nit ñi mën nañoo bëgg nga jiite waaye dafa am ñoo xamee sa ne mënuñ jiite am réew nekk président doo ay caaxaan de man damay xool nit ki xam ne kii mënu doon président mukk mais yow da nga ma waxoon ne ma Ousmane en tout cas da nga gis ci moom bidéew cinquième président te bu doonee cinquième président allah kulaal réew mi dafay naat mais xanaa. waaw xanaa xaw ma dama ne la xam nga Bassirou Diomaye Faye benn benn analyse bu ma ciy def mooy xam ne dama ne nit ñëw ñoo taxaw na Bassirou mooy Sonko Sonko mooy. jomaay comme ni ñu ko waxee. Mm-hmm. man même gëm-gëm boobu man gaw ma ko man ci wàllum analyse nii ndax man politicien su ma demee ba gëm ko ci Sonko laa ko gëmee Sonko gëm gëm gi nag soo ko waxee mooy man du ma wax ne ay patriote laa bëgg naa Ousmane Sonko xam naa ne projet bi woote baax na ci Sénégal. Mm-hmm. waaye man bokkuma Pastef bokkuma fenn ci yooyu. Mm-hmm. man ndax man ni ma ñooñu usmaan Sonko soxlaa noonu la ma ñeneen di soxla man du ma jeng fenn dëgg rek laay wax dëgg ji nag mooy Sonko kenn du moom ci gaañi. Mm-hmm. kenn du Sonko. kenn du Sonko ci politiciens yi kenn ku ñu dëkkaleeg Sonko dañ koy nax. suñ nee Basiru Sonko Sonko yi Jomaay ngir joxoñ gum ko jaxañ képp kuñ ko wax dañ lay nax Sonko kenn du Sonko du kenn ci ñoom. li yàlla def ci moom defu ko ci kenn du kenn maanaam Sonko leen gën a jub. Mhm. du ma wax nag mu la ëpp am na xam-xam waaye Sonko gën a jub te am réew nag ku jub su ko yoree réew moomu ala kulli xale dana naat. macha allah ndax lu ñëpp bokk nga indi ko ñëpp bokk ko. Mhm. loolu njub rek moo la ko mën a may Sonko gisuma kenn ku yeewoo Sénégal gën koo jub. moo tax Bassirou jumaa jumaa yi Sonko gaa ñi mën na juum foofu loolu nag sama analyse sama xalaat la. alors ñu wax ba tey eggal yi euh, ci émission bi nga xamante ne bi maa ngi ko seq ak euh, Serigne euh, baara ñu bari tey interpellé nañu ma wax dëgg yàlla di wax ne si ay taalibe yu bari yi nekk ci diaspora bi yow yaay tax seen këyit di yomb Mbàkke baal la ñu bari comme ni ma la koy waxee dañu yaakaaroon danga am connaissance ci. ambassades yi da nga am connaissance ci ñenn ñi nga xamante ni parce que wàllu këyit doo ci taxawandoo kenn. waaw mbirum papier moomu de na ma kii jotle papier bu weex bee ma am la ma ko ci expliqué jërëjëf jëmmi papier laa wax foo mën a nekk ci àdduna mm-hmm. te am jafe-jafe papier nga am kayit yoo déposé mm-hmm. kayit yi mënta jénn su ma xamee saw tur xam sa turu yaay maanaam fi kayit yi nekk foofa ci jëmmi dëkk boobu ma xam jëmmi tur dëkk bi mm-hmm. benn xawaatim laa koy wërale juróom ñaari fan su ma ko fa suulee billaahi wallahi lu kayit di compliqué force da nga koy jot hmm? maanaam ña yore dañ leen di xabtal pour ñu jox la kayit li fi jox na ko ñoom duñu am jàmm sëñ bi sept jours nga wax de juróom ci ne sax matuñu ko am na ci ñoo seen i kayit nee nañ ma dix ans mu ngi ci àll bi taxawaay mënuñu caa jot waaw loolu maa ne képp kuy wootewu sëriñ man a garanti nit ki comme na ko garanti ba tey déggu ma ko te du am te résultat du ma ci moroom kenn nag ci sëriñ si ndax benn sëriñ sëpp maa leen gën a jub mboolem kuy jënd ci internet maa la gën a jub. Serigne Touba yi sama am. maa leen gën a jub fuuf te man nag li jafe-jafe mooy man ku am xaalis dama koy ñaanal ku ñàkk dama koy ñaanal man du caagin da ngay am xaalis laa ñaanal. Hmm. am na ci dañuy ñëw luñ ma weexale sa duñ ko am. nit mas na maa weexale 3000 francs ma defal ko loo xamee sa la ma ko defal nit fay dama ca 4 millions ma defal ko mu fay ma 3000 francs ma defaral ko. loolu li ma ci jublu mooy man askan wépp laa fi nekkal. léegi nag su fekkee ne da taxaw léegi ñu am rek nga leen di ñaanal ñu ñàkk fu ñu jëm. Mm-hmm. nit ki da su fekkee da ngay dimbali te li ngay def nit ku ne la ngay liggéey te nga mën a jaamu yàlla sëñ Bàmba yow mi lii ngay def ci nga man a jaamu yàlla ndax da ngay gis benn borom xam-xam nga woo borom xam ba dalal ko mu waxtaan la waxtaan ay nit jariñoo ca. wallaay dëgg la ndax mudu mudu yi damay insister ci li may wax képp ku ci am problème pay papier na ma woo nu mu gën a gaawee ñu traité dossier boobu mu jeex ñu jàll ci keneen ndax muudu muudu yi sonn nañ sonn goo xam ne foo ko natt weesu na ko. ci wàllu këyit daf leen sonal. déedéet muudu muudu yi du këyit muudu muudu yi ci lépp lañ sonn. Mm-hmm. déjà moo tax kon émission bi Bamba may naa ko muudu muudu yi. macha allah te bépp muudu muudu réew moo mën a nekk am ay jafe-jafe jafe-jafe yi lu mu difficulté mbirum papier mbirum nga nga mënoo liggéey lu mu ca man di doon bamba nañ ma woo ma defal leen ñu mën a euh, wut ay jën jën ca programme yooyu nekk ci beneen programme bu gën foo mën a nekk ci àdduna nag mm-hmm. papier maa ci féete kaw kenn ku dul man maa la dàq ma ma ma la ëpp résultat ci bu weesoo itam papier Mbacke Ball euh, euh, commerçant yi nekk Touba moom xam nañu la commerçant yi ci Sandaga itam miin nañu quand sa ay xeetu bayre parce que itam bayre yi ngay def àlakulaal ku koy jëfandikoo sa ay boutique di yokk nit da koy samp nit faaw mu am wéeruwaay. ok Bay Jaxate nee na ku amul wéeruwaay yomb ba wax. Hmm. képp ko taxaw ne man na sama lépp bàyyi naa ko yàlla luy sama lépp bàyyi daa ko fii moo bàyyi du yëfam ay yàlla. Hmm. lan moo tax yàlla digal ñu nga dem leen sabablu. Hmm. su fekkoon ne sama lépp bàyyi naa ko yàlla kay doo xëy sa kër na da dem liggéey toogal de yàlla mën na lépp yàlla jox la yàlla neen dee leen dem di sabablu ku sabablu te sabab ya mat yàlla yàlla may la. moo tax mbirum samp yooyu waxuma la Sénégal Europe laa wax am na ci commerçant yu mag yoo xam ne fañ nekk tubaab yi dañ leen teg bët. te mhm. sama jëmm ji maa leen samp. Mhm. nit faw nga am ndëgërluwaay pour mën a jàll. ndax Sénégal iñaan nañ. Mhm. soxor nañ. mystique jaral na leen lu ne yàq doomu aadama bu nekk ci yoon ñaata nit ñoo fi nekkoon ci yoon tegu ci wu leer nañ ñi ay nit euh, yàqal leen te billaahi wallaahi taala képp ku gëmul mystique suñ la jàppee. bul ñëw ci man. yenn saa yi nag mu nekk cat. loolu la cat sëñ Bamba mooy lépp yéen daf salaa nee na sama xeet su fekkoon dañuy téeméer juróom benn fukki yëpp cat leen rey. cat mooy lan cat li koy waral mooy nit mën na laa xool ci bëtam catu la nit mën na laa tudd ci aw làmmiñam catu la. cat kay moom du bàyyi kenn moom cat tamit kenn mënu ci mucc moom. waaye nag am na ci ay xeetu cangat yoo xamee ne soo koy faral di def lu bari yàlla mën na la musal ci jàpp cat mooy li gën a naqari mucc moom.